Luc Anieu Mbengue projet de loi bi dinaa ko voter parce que monsieur le wax na la projet de loi bi dinañ ko voté incha allahu rabbi ndax nekk na projet de loi boo xam ne ma jàpp ne lu ama am solo la amoon na fi te bu ñu fàtte ne li ëpp ci sénégalais yi dañu wóolu président de la république ne ko doxalal fal ko mais jox ko majorité aussi à l'Assemblée nationale mu indi mu dindi postu premier ministre ne dafa bëgg fast te fast boobu ñi gis ne lu ama am solo la ndax bari na lu fi jaar te bu nekkul woon taxawaay boobu am fii foog naa ne Sénégal dina gën a metti ci ñoom monsieur ministre ci weer yu néew président mois de mars président war a jiite président Union africaine ñi koy félicité loolu ci loolu bu baax te mu nekk sac boo xam ne aussi sac la ci képp kuy kuy sénégalais monsieur le ministre foog naa am na ñoo xam ne tey buñ ne la dinañ voté sa budget bi war na la jaaxal parce que ñoom mosuñu voté benn budget projet de loi mosuñu ko voté kon ñoom bu doon ñoom kese la foog naa ne réew mi du dox mais tey jàpp naa ne booy wut opposition bu matadi bu xayadi boo ñëwee assemblée nationale nga dem toog parce nit. war nga mën a bëgg sa askan président Macky Sall nekk lu muy def yëpp lu bon la président Macky Sall day dafa dafa bëgg askan bi di indi ay projet de loi mais amul benn projet de loi boo xam ne ñëw na wala budget boo xamante ni ñëw na kon ñoom bu doon ñoom kese la tey jàpp naa ne Sénégal dara du ci dox kon monsieur le ministre na sa xel dal dinañ ko voté mais monsieur le ministre aussi bëgg nañu tey boo paree nga leeralal ñu dossier Adji Sarr ndax monsieur le ministre ponkal mu toll ni baayam am ñaari jabar ci këram jël benn xale bu ndaw yàq àdduna monsieur le ministre ba muntu génn monsieur ñi toog fii di am ay saytaane naan am na lu ñuy wax benn député monsieur le ministre bëgg nañ tey loolu nga leeralal ñu ñun nag tàmm nañ lii monsieur le ministre ndax fu élection di bëgg ñëw comportement yi la ñu yor te dañuy jëfur waaye nag bëgg bëree bañ bëree sénégalais yi dañu ànduñook ak waxkat te duñu duñu ànd ak waxkat bàyyi jëfkat te président Macky Sall ñëpp xam nañ tey fu mu jëlee réew mi ak fu mu bëggee a yóbbu réew mi te sénégalais yi boo nekkee fii assemblée di def yëfu dof ñi lay reetaan waaye tey bu ñu demee ba ci farata jot ku nekk xam na ki ngay voteel kon monsieur le ministre ñun ñu ngi ànd ak yow ànd ak président Macky Sall tey projet de loi boo xam ne indi na ko fii te askan bi gis ci seen bopp incha allah dineen ko ci gunge parce que xam nañ yéeneem ci Sénégal xam nañ li mu liggéey xam nañ fu mu jëm suba merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Annie Mbeng. Se prépare notre collègue Nango Sek. Merci beaucoup.